Malick TV ñu ngi en direct ak ki nga xam ne mooy Dembélé Dembélé noo gisee euh, ñaari mbër tey euh, guy gi nga xam ni mooy Reug Reug lu ndaw ndax xam naa ne da bëgg a dugg ci nga Reug Reug am mhm. na ko jiitu ci combat yi mag mais xam naa ne mën na ci ay différence bëriwul parce que Reug Reug dem na bay def ay 10 combats yi na parce que amuñu woon ni def na palmarès def 10 combats muy mën na bëree def na jàllale si biir sans frappe MMA ak ak wóolu boppam boppam guy gi nag nekk champion bi ne mun nga ne amul yenn qualité technique yi yeneen lu ñu ko amee dafa am ay points daf dëgg la waaw combat a doon. mais am nga yaakaar ne daal ku juum daan. waaw mais kon nag ku juum daan lamb la. Euh, gërëm ñu fàttali ne yaa ngi sunu lamb. fa ngay def ay yu am importance.